asalaamualeykum jeunesse su sama mbokk opposition yi ma fi fekk tey ñëw fas yéene ànd ak yéen bokk xeex bi dama leen di jox benn date mooy le 25 février 2024 dina am élection présidentielle ci biir Sénégal le 3 avril 2024 c'est-à-dire dans 1014 jours fii ak junniy fan ak fukki fan ak ñeent dina am passation de pouvoir au Sénégal président Macky Sall jël lenge yi jox ko kenn ci gor ñi nga xam ne ñoo fi toog tey toogal askanu Sénégal donc 1014 jours moo ko dese ci 1014 jours yooyu nga xam ne moo ko dese. dañu war a waajal suñu bopp liggéeyal suñu bopp pour mu bañ a nekk candidat gis nañ ne yéen ñëpp comprendre ngeen ne kenn waxatul waxu mandat waxu candidat la ñuy wax may fàttali sama bopp di leen fàttali ne quand on n'est pas éligible à un mandat on n'est pas éligible à une candidature quand on n'est pas éligible à une candidature on n'est pas éligible au dépôt de la candidature Et quand on n'a pas le droit de poser une candidature, on n'a pas le droit de mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, on n'a pas le droit d'amener les jeunesses à l'abattoir. bu leen fàtte bi ñu tolloo ci lii en 2011 il y a 10 ans am na nañu Fodé Ndiaye mu daanu ci Colobane pour troisième mandat ak constitution ba ñu tolloo ci lii en 2011 am nañ Mamadou Diop bu Mbour mu daanu ci lii en 2011 am nañu maradien bu daanu ci Kaolack ba ñu tolloo ci lii en 2011 am nañu Ousseynou Seck bu daanu fii ci Grand Yoff ba ñu tolloo ci lii am nañ Mamadou njaay bu daanu Kër Mbay Fall ay sénégalais yu dul jeex tollu seen dikku doole daanu parce que dañu salfaañe suñu constitution loolu la bañ mu dalaat jeunesse bu mel ni yéen consciente nekk une jeunesse politique jombuñu am dëkk boo xam ne dañu moomal suñu bopp ay ressources di ko doxal jombuñu jële fi Macky Sall ñu am dëkk boo xam ne tey dañu koy fàtte am na ku ko wax sànq ci opposant yi waaye président Macky Sall lépp loo xam ne mooy pouvoir jël na ko tey téye ko ci éducation bu ñu tolloo fii tey en 2022 mënatuñu ko am ngeen bàyyi ci xel parce que lan moom mënoon tax opposition jël pouvoir avant 2024 mooy ñu nekk benn say dem 2024 gagné ko créer cohabitation créer suñu gouvernement gouverner ba 2024 fii ñu toll nii tey constitution Sénégal ma koy fàttali seen bopp di leen ko fàttali amatul premier ministre ma bëggoon opposition bi ngeen xalaat ci ñu defoon benn dànk ba dem ba 2022 gagné est-ce que mën nañu gouverner est-ce que dëkk bi du bloqué parce que bu boobaa dootoo mën a am premier ministre boo amul premier ministre mënoo am cohabitation boo mënul am cohabitation sa gouvernement mënoo ko former te mënoo doxal mu nekk ay poñ yu am importance yoo xam ne au de la mobilisation dañ ciy xalaat taxaw pour que jóge fi Macky Sall bi gën ci gaaw jaare ci élection locale jaare ci élection législative dem ci présidentielle je vous remercie jërëjëf